dañuy tàmbalee mbir mi ci Barthélemy mi nga xamante ni am na ab taxawaay bu mu amee jaaxal ñu bari sénégalais yu bari jaaxle ci ne lan moo tax Barthélemy am taxawaay bii mu mel ni buñu ñu dégloo Pape Gorgui Ndong danañu xaw a gindi ci li tax taxawaayu Barthélemy Dias deme ni ñu ànd ak waa Rési te dellusiwaat. opposition bi nga xamante ne ci laa doon wax sànq. du Ousmane Sonko rek. y a des gens aussi dans l'opposition comme Barthélémy Diaz. nga xamante ne. peut-être mën naa jaaxal sénégalais yi buy wax. waaye ñun ñi nekk ci ci ci on a les mêmes amis du ñu jaaxal. Barthélémy Diaz euh, ne ne parle pas aux populations. Barthélémy Diaz ne s'adresse pas au président de la République. malgré li wax nii lu bon li muy wax yépp il ne s'adresse pas au président de la République. il ne s'adresse pas aux populations. il ne s'adresse pas à Benno Bokk Yakaar. il se justifie auprès de ses camarades de Yewwi. puisque en réalité ñiy gérer pouvoir bi. maanaam yéen. bu baax guddeeg bëccëg ci ay compromission yu metti mais nag il est obligé le jour. d'aller justifier à son Sonko ou à à à à Khalifa Sall. que je suis bien de Yewwi. Euh, xam nga. xam nga politique parfois li ngay seen di ko gis ak liy xew lu xaw a jafe la parfois quand j'entends certains à la télé parler euh, damay xam ne Sénégal ci danger bu danger bu doy waar lañ nekk puisque nag conviction daf fi xaw a jafe li ngay def ci guddi gi ak li ngay def ci bëccëg ka wuute li ma la wax lu leer la Barthélemy Diaz buy waxtaan buy wax ci télé di saaga saagawul président Macky waxul ak population bi coalition ba mu bokk la bugg a dëggal ne foofu la far puisque nit kuy justifier tubaab daf ne kiy justifier sentir na une culpabilité dafa am culpabilité bu mu sentir culpabilité boobu nag mm. dem leen ngeen gëstu ko bu baax culpabilité boobu ci lan la culpa non du demee déedéet bu demee woon noonu day flagrant da nga koy xool da koy gis mhm. mais liggéey bi ñuy liggéey ki ñu koy liggéeyal mhm. wallaay Ousmane Sonko ak xalifa Sall xam na ne Barthélemy jaas xam nañ ne Barthélemy Diaz liggéeyalu leen li muy wax nii yëpp ay wax la rek maanaam pour jamono jii ñu nekk nii mhm. am na lu bare bare loo xamante ne boo koy def mënta na dina am ñu mu nëbb nag ñu muy waxtaanal ay ñooñu ils sont dans dans dans le même tempo ils dînent avec l'opposition la nuit def seen yëf le lendemain ils vont déjeuner avec le président de la république en souriant li ma la wax daal lu leer la ñooñu ci même tempo opposition bi lañ nekk guddi gi ñoom ñë ñoom ak opposition bii di saaga Macky Sall ñoom ñooy toog teg ya ñu teg le lendemain ñu invité leen aux côtés du président Macky Sall ñu ñëw toog di añ di ree macha allah góor <laughs> gi Ndong mooy kàddu yi nga xam ni moom la yëkkati bu nekk kàddu yoo xamante ni bii Eh, paaka ñaari boor la maanaam euh, góor gi Ndong yamul ci wax ñu Barthélemy waaye dafa egg ci xamal ñu ñoom ñooy ñan maanaam li muy xarab Barthélemy mais booy xarab nit ki te li ngeen di def yéen ñaar yéen a ko bokk di ko def kon dafa mel ni xarabaale nga sa bopp loolu nag mooy maanaam système bi nga xamante ni bi moom la politiciens yi di faral di teg maanaam bu ñu gisee ñoo xamante ni bi jàpp nañ ni ay nit lañ yoo xamante ni bi ñu jub lañ dañuy fexe ba wax la ne la ku jubadi gi ak ñun benn lañ parce que maanaam ñoom dañuy xaw a tënk seen bopp ci ak jubadi maanaam looloo tax li Barthélemy doon def Barthélemy munu ci gañe c'est parce que li mu ciy perdre moo ëpp li mu ciy gañe parce que tey jii ki nga xam ni mooy Pape Gorgui Ndong ñëw na sacrifier ko pour wane ni Barthélemy day justifié wu pour wane ni mu ngi bokk ci Yewwi te kat day dem di def li nga xamante ni bi mooy ay làqar ceeka lijjan ci seen mbiri bopp loolu mooy kàddu yi nga xam ni moom la góor Gorgui Ndong wax loolu nag moo tax état bu fekkente ni danga nga am ak moom ay mbir day am ñoo xamante ni bii tey maanaam njiit ko du wax waaye day am ñeneen ñoo xamante ni bii ñoom ñooy jaar ci suuf di la détruire di la yàq di wane yenn yi nga xamante ni bii yaa ngi koy def muy jéem lijjant yi loolu nag day tax lii nga xamante ni bii ci lay nekk maanaam di wax ne euh, dañu war a waxtaan yu mel nii mooy indi jafe-jafe dañu war a waxtaan parce que dañu war a waxtaan cela ne veut pas dire que ni bu ñu waxtaanee dañuy juboo waaye ñu mel nii nga xam ni mooy Pape Gorgui Ndong bokk nañ ci ñi nga xamante ni bi ñooy gën a jafeel waxtaan di am ci am réew parce que ñoom après ñooy def ji mission ngir fas yéene euh, décrédibiliser ki nga xamante ni kii mooy ka ñu war a waxtaanal loolu moo tax jamono juñ toll nii ñu nekk ci benn impasse boo xam ni lan moo ko indi maanaam kii ñëw di waxtaan ak yow bu ñu la waxee ne la da nga war a dem waxtaan waxtaani lu bari li ngay moytu mooy boo demee di waxtaan waxtaani ñoom dañuy mujj jël waxtaan googu daan ne gis ngeen yëf yi ni mu demee ñun ñëpp ay tappalekat lañ te bu fekkente bi dugal nañ la ci gaalu ñun ñëpp ay tappalekañ lañ ñoom duñu ci perte c'est parce que dañ naan askan wi jàppee nañ ñu ko ñun ba pare waaye yow mi nga xamante ne bi yow la askan wi jàppee ni kat am nga sellte léegi ñu mën laa dugal ci li nga xam ni mooy mbir moomu parce que defe naa ni moom tey ak Barthélemy lu mu mën a wax Barthélemy ñi ko war a mere ba war a génn di ko waxal moo war a nekk ñi nga xamante ni bi tey ñoom la nekkaloon démb mooy comme Barthélemy ni mu génnee kenn xàmmeetu ko euh, sénégalais bi nga xam ne doon na suivre Barth démb ak bërki démb mënatu koo xàmme parce que discours am léegi dafa féete fële ba mu ëpp di ŋàññ ñi loolu tax ñu bari mere ko ci réew mi donc nag yow mi nga xamante ni bi yow la doon waxal yéen ñi mu doon waxal waru leen a génn encore di ko enfoncer mais le fait que ñu di ko enfoncer loolu moo tax l'autre jour ma waxoon son bu ne ko Barthélemy mbalaanum kiiraayam la muri fi mu toll nii Barth nit la koo xamante ni kii lu ko président Macky Sall bëgg a def mën na ko koo def c'est parce que amatut protection waaw yu mel nii nag di génn mën na génn après ëllëg si biir am yeneen yoo xamante ni bi mën na ci topp donc loolu mooy li nga xamante ni bi euh, moom laa doon leeral ci point boobu bi ma gisee li nga xam ni mooy vidéo bi ma ne lii kat yëf yi doy na waar mais en tout cas Bart la Serigne Moustapha Sy waxoon na moytu ñu nax ko te lii boo ko gisee day mel ni nax googu nga xam ni moom la sëñ Moustapha Sy wax ne na moytuñu nax ko damay jàpp ne nax nañ ko ba pare